gars vive la révolution vive la révolution vive la résistance vive la résistance la résistance le combat continue résistance résistance guys résistance soldats vive la résistance tous pour la libération de Ousmane Sonko tous pour la libération de Ousmane Sonko combattants debout et digne, nous réclamons la libération immédiate et sans condition de Ousmane Sonko. Nous réclamons la libération immédiate et sans condition de Ousmane Sonko. Libérez Sonko, libérez Sonko, libérez Sonko. Que tout le monde, ñëpp Sénégal yop, réclamer la libération de Ousmane Sonko dañ ko beaucoup bu ko beaucoup bu beaucoup, libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko na yuuxu partout xale yi mag yi na ñëpp eh, eh, jël kàddu googu noonu di ko xeexee génn ci mbedd yi bu leen bàyyi dara na lépp mokk na lépp tàkk jëppeet na lépp bay di bax pour ñu mun a libérer le soldat Ousmane Sonko buñ ko deful ña ngay waajal ña ngay nekk ci seeni pexé jamono ji guddigi gi yëpp ngay ci réunion ya commencé nañ seen réunion ak ay seen appel ya procureur bi Abdou Karim Diop Bara Sangare commissaire ki nga xamni mom moy ministre de la justice Ismaïla Madior Fall ki nga xamni moy Antoine ñak jom ña ngay réunion réunion gu metti ci téléphone ya di commencé di waxtaan nan lañ bëgg toroxalé Ousmane Sonko bu Sénégalais yi génn fas nañ ko lundi défalat benen encore retour de parquet parce que jàpp leen ni fu ne nii Ousmane Sonko tàqale nañ ko ak matelas il faut que sénégalais di xam la réalité Ousmane Sonko tàqale nañ ko ak matelas ña ngay ko bayyi BAG BAG nak ay gri mo fa am gri ya amul lal amul madla, amul éponge ay caro fa ne kon jàpp leen ni sen leader bi ngeen di wax ngeen ne da ngeen ko jox sen yaakaar jox ko sen aduna jox ko tay jii seen lepp li nga xamni ni ngeen gëm ni bu ñëwee dina ko défar jàpp leen ni sen leader bobu tey Macky Sall jàpp na ko indi na ko ci BAG ci biir tribunal ba sànni na ko foofu ci karo ya fu mu nekk nii Ousmane Sonko ngi toog ci karo te foofu la fas yéenee fanaan foofu la fas yéenee fanaan ca karo ya karo tàqale nañ koog jabaram tàqale nañ koog doomam tàqale nañ ko ñu am di jàmmam tàqale nañ ko këram kon Ousmane ko tey ji boole boo leen tëddee na ngeen xalaat ni ku ci nekk ci yéen ak ngor ak jom xamni tay ji fumu toll ni yena ko fa yobbu yena xex ba mu yegg si fii donc boo leen seetaanee tey ba mu fanaan ci karo ya, japp len ni yeen sen conscience war tranquille ndax Ousmane Sonko jamono ji ni ni ñi wax ak yeen ni ma nga BAG ci karo ya ma nga ci karo ya ma nga bo duggé BAG ci bir ci am ruq bobu non romb bureau yi ma nga ci fond ba ma nga ci karo ba tok ak grand bubam ak kiyam copetem ma nga fa karo ba tok ñu tok loko fa ma nga fa tok ñu tegg giri ba ñom ñi nga ci bir bureau ya ak ñeñ ka fa bàyyeel pour ñu xol ko donc Ousmane Sonko weekend bi, muy tay tey ko tay vendredi Ousmane Sonko ginaaw bu mu julé ma nga ca karoya ca BAG suba mu fanaanee fofu mu fanan ca karoya tok ca karoya ca giriya dimanche mu tok ca karoya lundi bu fekkee sénégalais dañoo sétane ba lundi ñu fi xeex bu tang bay bax di bax bax bax bax baxi jàppaleen ne kon Ousmane Sonko lundi makissal Sall dina benen dóoraat beneen retour de parquet

ci ay karo la Ousmane Sonko nar a fanaan tey ci tàngoor gu métti la Ousmane Sonko nar a fanaan tey ci ruq ruq janax lañ ko dugal tey tey kon donc sénégalais yi warul sedd ci guddi gi ndax kenn warul képp kuy gor waroo tëdd tey ci si lal di nelaw képp koy gor laa la wax war nga yeewoo Sénégal bu dee gor ga bu dee gor moo la jur bu dee garmee la jur waroo tey tëdd ci lal di nalaw bu fekkee ne yow nee nga da nga mus a gëm projet boobu da nga mus gëm Ousmane Sonko da nga ko mus taxaw da nga ko mus a jaayante jàpp leen ne tey kenn warul nalaw ñoom autorités yi ñu nalaw bu fekkee ne Ousmane Sonko tey ji ci ay karo lay toog wéeru ci ay giri di xaar yàlla di leen xaar tamit nag di leen xaar parce que Ousmane Sonko moo ko wax nee na ginnaaw yàlla yéen rek laa yaakaar kon tey xanaa ni doo leen seetaan yéen gor yi yéen garmi doo leen seetaan tey guddi gii ngeen di tëdd ci ay lalaw di na lal di nalaw bay bay bay gént Ousmane ko nekk ci karo toog ci karo di wéeru ci ay giri ñun ñu koy garde yaakaar naa ni loolu war leen ko nangu tey war leen ko nangu ëllëg donc tey combat bi guddi gi yëpp dafa war a tàng jër jër jër jër dafa war a tàng mel ni Gaza ak Ramallah donc génn leen occupé mi leen mbedd yi Sonko dañ ko tooñ te benn doomu aadama munul wax leneen gis ngeen ko expliqué nañ leen histoire bi histoire bi nag ñun dañ yàlla dafa def ni dañ cee tombe comme nu ma koy yàgg di wax ne mbirum Ousmane Sonko ak man mi mbirum baatin la du mbirum saayir mbir bu yéeme la man teel naa gis ni yàlla daf ma missionné ci l'histoire de Ousmane Sonko man yàlla daf ma cee woon ay mandarga yi mission dama laa yabal te man dama gis ni yàlla dafa ma yabal ci pour ma taxaw Ousmane Sonko pour xeexal ko tey ji ci fajar kenn koo xam ne këram la jóge dem pour julli ji kër Ousmane Sonko moo ma woo ne ma tey ajjuma damay jullee ji kër Ousmane Sonko ba mu jëlee otom taal ñi ngi wax man ak moom vidéo ba mu yegg kër Ousmane Sonko ñi ngi wax vidéo ba heure waxtu julli jot mu ne ma booy ñi ngi dem julli ji ma ne ko waa ok mu taal otom gaare foofu noonu ànd ak Ousmane Sonko ñu dem julli ji ak beneen waaye ak ñeneen ñu gis naa leen ba ñuy julli mu woome ci yoon bi na ma booy ma ne ko mu ne ma am na ñu ñu topp ma ne ko ñu leen topp na comme commencé mu ne waaw mais après xam naa bu ñu paree julli dinaa leen dinaa la expliquer ba ñu jullee ba pare di retourner ci la ma woowaat ne ma booy ay gars ñu topp ma ne ko gars yi ni leen toppee mu dugg ba ci biir kër Ousmane bu ñu nekkee ci buntu kër Ousmane Sonko ci la Ousmane Sonko tourné jàkkaarloo xale bu jigéen bi ma nga sol brassard mi ngi sol kii nu ñu ko waxee euh, kii Ousmane Sonko yi mi ngi sol mi ngi sol kii Ousmane yaa ngi dégg ñu retour Ousmane Sonko tourné ñëw ba ci moom ak njekk boobu lépp maa ngi gis Ousmane Sonko ñëw ba ci moom njekk ne ko waaw soxna si na nga def waaw damay remarqué boobu ba léegi yaa ngi ma topp di ma enregistré lan mooy lu waral loolu soxna si ne ko xanaa du moom waxu réew nag maa ngi dégg mu naan ko xanaa du moom ma sama téléphone xale bu jigéen bi gendarme te boobu solu yëre gendarme ne xanaa du ma mase ma téléphone la ko wax Ousmane Sonko ne ko yaa moom sa téléphone mais man it moo moo ma amoo droit di ma topp di ma enregistré bu ñuy jóg di julli ji ba léegi ñu maa ngi séntu yaa ngi topp sama ginnaaw di ñu enregistré léew amoo droit di ma enregistré ndaw si ne ko man maay enregistré ba mu neex ma yor téléphone am di enregistré Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñëw ba jàkkaarloog moom face à face à un mètre presque à quelques centimètres jël téléphone bi agressé wu ko buma maxu ko xeexul ak mom dafa jël téléphone bi ci loxom ndaw si baye ko téléphone bi mu tété Ousmane Sonko demul de mu jël téléphone loolu man maa ngi assisté kenn raconté mo motax histoire ma maa ko njëkk raconté parce que dama ko féké luma féké la tok fi ñuma kay won ma féké du luñ ma wax donc ma gis ndaw si ci bopam mu baye dafa baye téléphone Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne ko jël téléphone du jàkkaarloog moom ne ko mi ngi nii defal sa code nga déverrouiller ko boko ko déverrouiller nga génne vidéo yi nga ma enregistré jël sa téléphone ndaw si bañ mu ne ko comme demee na noon léegi maa ngi dugg sama kër ak sa téléphone comme dafa verrouillé wu mënu ma koo déverrouillé léegi nag yow boo buggee mun nga fëgg boola nga sone ñu ubbil la nga dugg nga déverrouillé téléphone bi nga dindil sama image après nga jël sa téléphone ndaw si dem duggaat ci oto boobu noonu procureur di wax naan ah, oto bi daa paanoon buntu kër Ousmane Sonko oto boobu nag ngeen gis noonu noonu oto boobu def nafa 5 jours 5 jours ay matériel yu sophistiqué mi nga fa yo xam d'espionnage la auto boobu auto gendarmerie la auto banaliser gendarmerie la ben quel moo koy dawal amna yenen gendarme ñu nek ci biir ak plus de cent renseignements généraux de la gendarmerie et de la police une ñu tuur ci biir koñ bi chaque jour parce que Macky Sall du koy bayyi dëmm la bu maté du lek lekkkatu nit la lolu mom wax nañ leen ko bataille. donc moment bi nga xamni Ousmane Sonko mi dul téléphone bi dugg ci biir gel bi dem dugg ci biir auto bi ci la gel bi dem wowe la police et la gendarmerie nationale deux heures de temps lañ ci tek deux heures de temps bobu man maa ngi waajal julli ci parce que man bu may woote bu mu ñoo non foofu noonu ñoom julli nañ ba ñew man maa ngi Canada bobu man maa ngi waajal julli ji midi mo jotone fi midi jot fofu non seize heures donc yéen bobu ñoñu yéen pare ngeen julli ba paré yéen waa Sénégal ci la ñu gel bi Wow, la police et la gendarmerie nationale nous débal 300 éléments 300 éléments bien armés nous, nous, fetal nous, Nous nous ñu nous, buntu Ousmane Sonko nous ko Gal, nous nous, nous nous Nous Ousmane Sonko Nous Ousmane Sonko nous commencé nous, eh, élément nous, di wax tam nous, Ousmane Sonko dem gars yi ñëw nañ ak plus de 300 éléments ma ne ko jëlal ma photo nu mu gën a gaawee ci la ma jëlal photo yooyu boobu mi ngi kër Ousmane Sonko gis ngeen giri yi noonu commencé di leen photo ñoom ñi ngi ci suuf fees dell boobu kii leen jiite nag moom moom mooy Meng Abdou Meng xam ngeen doome xaram jooju Abdou Meng yàgg naa leen wax waxu turu Abdou Meng depuis l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko Abdou Meng moom kenn du leen du ma leen ko nettali ci ku ci nek ci ñi ngeen di dégg ñi def sal boulot war ngeen leen xam parce que man raconté na leen lepp seen juddu seen bërki démb seen et cetera seen jabar yu fu doomi xaram yi def ci et cetera donc Abdou Meng mo ñew ay bu Abdou Meng ñewé mu indi pied de biche bi li nga xam boo ko doré buntu yi day dajé ko Abdou Meng indi ko bu ñu ñewé sama waajooju woowaat ma ne ma xool leen ñu commencé di tepp miri di yek ci kaw miri di jël mbuusu ñuul préparé nañ lepp mbuusu ñuul yooyu gis ngeen ko par bu ma leen wax live bi boobu gisagu leen sax photo mbuusu ñuul yi ñu yëg ci kaw miiru kër Ousmane ko jël mbuusu ñuul yi di ko takkee caméra yi pour bu caméra yi wone caméra loolu man maa ngi ci teg samay bët ki may woo noonu nekk biir kër Ousmane Sonko mi ma ëbbal vidéo may gis jàkkaarloo mu naan booy demal wax ci ma ne ko non xaaral foog ma gis parce que lii comme film lii mënul nekk mu ne mu ne ma non gaaw gaaw gaaw alerte gaaw ma ko non xaaral rek dama bëgg a xam ba lii film la wala dëgg la waa ji yëg ci kaw jël mbuusi ñuul yi di ko takkee caméra yi kër Ousmane Sonko yi commencé takk caméra Ousmane Sonko yi ñu ñu yëg ñuy tëb miir yi ba ñu tëbee miir yi am ñoo xam ne Abdou nga commencé ne nañ dugg ci lañ génnee pied de biche bi di dóor bunt bi bum maa ngi dégg kuy bum bum maa ngi dégg kuy maanaam ne gars yi nu mu demee mu ne waaye booy taxawal wax sénégalais ma ne loolu xaaral xaaral xaaral parce que moment boobu mënu ma woon bàyyi loolu raw ma il faut ma gis moo tax premier live ma wax leen maa ngi dégg sax kuy ñu daj ci la Abdou Mbengue dajee bunt bi ba pare nag Ousmane Sonko mi ngi ci kaw yëg leen ngeen ngeen génne ndaayam la wax génn yëg leen ngeen génne ndaayam ngeen ngeen noq ko fii carrément muy saaga Abdou Mbengue yéeg leen mi ngi ci kaw te étage am yéeg leen ngeen génne ndaayam ngeen noq ndaayam ci biir oto bi meng Mbengue di saaga man maa ko dégg samay nopp direct bu ñu dajee bunt bi ci lañ ñëw génne seen fetal ci lañ allumé foofu la foofu laa demee dem live parce que moom bu ñu duggee ci biir kër gi rek lañ allumé gars yi nga dégg jabar Ousmane Sonko bi ñaareelam bi di yuuxu bàyyi leen ma bàyyi leen ma yuuxu foofu noonu la ñu allumé gars foofu la foofu la affaire ba daggee. parce que ki ko doon def noonu moom ci lañ moom dañ ko allumé moom ci boppam dañ ne ko nañ nañ wàcc seen téléphone ñoom ñëpp ñu wàcc seen téléphone ñu allumé leen ñu fekk ci biir kër Ousmane Sonko yëpp lañ allumé fetal fetal armé ko jusqu'au temps ne leen allumé wàcce leen téléphone yi ñu wàcce téléphone yi ñoom boobu laa dawee dem defi live ba ne attention kër Ousmane Sonko ngay boy gars yi egsi nañ ña taal kër Ousmane Sonko ña ngay dem jëli Ousmane Sonko boobu jëlaguñ sax Ousmane Sonko bu may live noonu jëlaguñ sax Ousmane Sonko ñu ngi yëg ci kaw pour dem jëli ji Ousmane Sonko Abdou Mbengue ngay saaga di yuuxu di dajji buntu kër jàmbur bi nekk ci biir ne gars yi nañ dem jëli Ousmane Sonko ci lañ ñëwee fekk Ousmane Sonko ci kaw benn waaye dafa ñëw fekk Ousmane Sonko xëcc ko ci mbag xëcc dafa xëcc Ousmane Sonko nii ci mbagg bu mu xëcc Ousmane Sonko ne ko euh, français sax la ko làkk ko teggil sa loxo sama yaram teggil sa loxo sama yaram la ko Ousmane Sonko wax. teggil sa loxo sama yaram ñeneen ñi ñëw ñu engouffré ko takkuñu ko mënat engouffré ko jaay ko doole di ko bumax di ko dóor di bumax di puus di puus di ko puus ba wàcce ko. jaay ko doole wàcce ko ci la Abdou Mbengue ne Ousmane Sonko yegg si Abdou Mbengue jàkkaarloo moom mu ne dugal leen ko ci oto bi ngeen noq ci euh, ñu ñu dem. ci lañ ko dugalee si seen oto yooyu ñoom ñëpp ñu rang ak seen pick-up yeeg seen kaar yëpp.

donc jàpp leen ni Ousmane Sonko nekkul ci lal Ousmane Sonko tëddul ci lalam Ousmane Sonko séparé nañ ko jabaram séparé nañ ko ci njabootam Ousmane Sonko toroxal nañ ko ñëw nañ jaay ko doole dugg nañ ca kër ga yàq nañ bunt ba yuuxuloon nañ njaboot ga fitnaal nañ leen génn ay fetal téymale leen ko ba pare jël Ousmane Sonko yëg ci kaw yàq ci kër gi yëpp yenu ko dem yóbbu kooku nag cher sénégalais ngeen jàpp ni lii moo xew Sénégal lii moo fi am ba mu amee nag information boobu pour leen wax ne leen télé Youssou Ndour gi télé doomi xaraamata njaay la tele bu bon a ngi noonu nag télé boo xam ni boo leen di xeex bàyyi ko bàyyi ngeen bàyyi ngeen lu ñu war a taal bàyyi ngeen lu ñu war a lakk ndayam bàyyi ngeen lu ñu war a yàq ci saase bu may def live am ñu jóg commencé di woo télé yi parce que boobu kenn xamul sax lu xew boobu sama premier live kenn xamul lu xew am ñu koy seetaan daw am na koo xam ne dafa dem ci TFM woo leen fa la doon liggéeyee woo leen ne leen yéen yëgu leen lu xew kër Ousmane Sonko la gars yi dugg ñu ngi attaqué moo laa ngi ciy def ay live nee na waa TFM xam luñ ko wax naan ko non loolu depuis tey si suba la non loolu moom c'est pas intéressant depuis tey TFM loolu depuis tey si suba la quoi loolu du dara loolu Ousmane Sonko yóbbu nañ ko tey suba gars yi dañoo ñëw pour am lu ñuy vérifier ci biir kër gi ay doome xaraam lañ TFM ñu ñaf seen nday lañ TFM kat seen nday rek lañ mérité taal nday tay fm kat sa nday observateur booy leen ndayam bu leen leen fàtte ay dëmm nooxóor in firo laqat jaaxum la ñu kat seen job bu nday lañ tay fm kat leen ndey tay fm na tàkk taal leen nday tay nag dafa jot ñu kat seen ndey ñoom observateur rek seen lu ñu yor ñu dëgg seen nday lañ ñoom ba léegi relais wuñ message euh, information bi dem leen xool tay fm amuñu ñu ci waxee waa ji demee di leen woo doon fa yàgg liggéeyee bu mu leen wooyee dañ ne ko non loolu depuis tey suba Ousmane Sonko yóbbu nañ ko depuis tey suba loolu noonu dañuy ñëw pour vérifier ay affaire dañuy ñëw pour wut ay affaire ci biir këram ñu kat seen nday lañ waa GFM kat leen nday taal TFM nañ boy seen nday ñu dëgg seen nday lañ tey la ñuy génnaat nekk vendredi di seetaan ñu leen di duula ka dajale toog benn plateau biir buy taw ku nekk di wax jëmale kanam ñu ñëpp seen jobb nday lañ waa TFM Youssou Ndour ko katt ndayam la doome xaram lañ katt leen nday TFM na tàkk na tàkk na boy observateur bu leen ci bàyyeti dara ñoom ak ay ñoom ma dambal jaaj ak ñoom ñëpp dañ leen war a kat seen ndey quoi ay doomu xaram lañ instant yaa ngi no gis ngeen walf ña ña ngay saboté walf ña ngay saboté internet waxoon naa leen saa yu resistance jote tey c'est fini dañuy jéem a saboté internet bi wut leen VPN installé leen VPN gars yi dañuy saboté euh, internet bi wut leen VPN installé leen ko

ngir yàlla wax nañ leen ba sonn man xaw ma da a am paan ay information xaw ma da ngeen a paan ay xaw ma seen bopp yi ñoo wéré di xaw ma lan la wax nañ leen ba dee bàyyi leen di toog naa wéy waaw waa ji newoon en contumace jàpp nañ ko kon affaire bi jeex na contumace père lii yëpp père waxoon na ko ci live ya depuis deux mille vingt et un avril deux mille vingt et un père na leen affaire aji saar bi jàpp leen ni buñ ci paree di ngeen amaat yeneen ndëgg sërëx yeneen plan Yo, xam gouvernement bi da ko paré, tant que jëlul Ousmane Sonko dóor ci kaso bu gouvernement bi du paré. lol père mo len ko waxone je me rappelle très bien waxone len ba wax ne sen waji né ne waji ñu bari nak don ko don ko weddi non waji dañ ko yónnee euh, c'est vrai sen waji la wax sax sen waji préparer len ko 2029 mané père lan mo tax 2029 mu né parce que 2024 sen waji bu deful ndank du ko fekk sax ci mbedd mi ni la ko père waxé won

diggante bobu noonu affaire Adji sar rek mo fi nekkoon tay ay vol de portable ay violence amu fi won té pourtant lolu ñun wax nañ leen ko 2 ans avant 2 ans avant ne leen amna yeneeni pexé yeneen dëgg sërëx yu gaay di ñëw ay dëmm lañ ko sékkal ay infiro laqat jaaxum ay kutti mbassane lañ kutti mbassane lañ ko sékkal wajal leen seen bop préparé leen Macky Sall du koy bayyi du koy bayyi Macky Sall xëcc ay barricade sanni fële sénégalais di jubilé mu ñëw yaba tuur fa mille cinq cent euh, renseignements généraux jël ay oto gaare fa jël ay matériel dugal ci oto yi ba mu fees dell di enregistré buntu kër Ousmane Sonko la oto bi gaare def na cinq jours procureur génn Abdou Karim Diop naan leen ay dafa paan Abdou Karim Diop nag mënu ma waxati ci moom parce que damaa wax ci moom ba sonn wax naa ba sonn kuy wër doome xaram jàppal Abdou Karim Diop buñ ko falee laa ko woo même guddi gi guddi gi mi ngi nekk ci oto ñuulu kooku ma jàkkaarloom vidéo laa ko mu xool ma ma xool ma ne ko Abdou Karim mu ne ma waaw ma ne ko ngir yàlla ngir yàlla sa banditisme yooyu nga nekkee fii sa yëfu doomu xaram yi nga nekkee xanaa bàyyi nga ko mu ne ma comme lan ma ne ko dama ne Abdou Karim laalo Abdou Karim Diop mi ngi may dégg ma koy dégg vidéo laa ko mu nekk ci otoom taalu sax lamp bi mi xool ni ma koy xool ma ne ko yëfu doomu xaraam yi da nga war a bàyyi Abdou Karim ñoo nekk ndoo Kaolack muy jógee coof ak ñuy jógee bu sandi dem jàngi lycée mu nek suñu grand xam nañ ko bu baax doomu xaram la bu muy biral ca Kaolack ñun xamuñu sax nan lañuy nan lañuy laalé jigen ba muy biral biral ya ñëk ya biral di bañ ñëk njëkk Kaolack yi Abdou Karim jo bokk na ci yaayam nek hôpital Coofak di di nek fa infirmière Abdou Karim job mi ba mu génné ENA ñu affecté ko luga, mu def fa ay yu salté sacc ay kër jambour sacc ay terre jambour di arnaqué wa luga ya grand luga la dëkkoon xaw ma grand Louga ko foofu la dëkkoon di sàcc ak arnaque jàpp ay waa Louga di leen napp di leen nangu seen tool yi di nangu seen suuf yi Abdou Karim bu jógee woon foofu ñëw Kaolack lu muy yor kenn xamul lu mu toll lépp da koo sàccee ci waa Louga jàpp waa Louga napp leen di nangu seen terrain yeeg di nangu seen tool yeeg di leen teg fitna yoo xam ne gars yi dégg naa waa Louga gis procureur ngi ñëw di daw di dugg ci seen suuf rondal yi Abdou Karim fitnaal leen fa fitnaal xam ne doy na waar musiba naaro laay lu mu doon ñëw di indi Kaolack yëpp mi ko doon sàccee ci waa Louga di leen jàpp ak di nangu borom vélo yeeg lu nekk la Abdou Karim doon indi ñu waxati ñu yóbbu ko cees mu sàccati waa Thiès sàcc jaay leen bandi arnaqué leen jaay leen doole jaay fitnaal leen nangu lépp doomi xaraame lañ ko xamee doomi xaraame lañ xamee euh, Abdou Karim Diop ba mu ko wooyee ca oto ba nan ko xanaa nag buñ ko falee ma nekk ko xanaa bàyyi nga loolu mu naan lool la ma expliqué ko ne ko ak sa jigéen a ah, <laughs> mais Mollah Boy kan moo bañ jigéen doome xaram la seen programme na kan bañ jigéen ma ne ko man waxuma la ay bañ jigéen ak bëgg jigéen dama ne nanga na nga mel ci jigéen yi xanaa bàyyi nga ko Abdou Karim boo gisee jigéen feebar jigéen boo gis bu ko tëbu jigéen boo gis jëm ko iri pour xool noo ko laale Abdou Karim xanaa bàyyi nga feebar googu noonu xanaa léegi faj nga ko <laughs> non moo la <laughs> yow kan moo bañ jigéen kan moo bañ jigéen ci laa xam ne doomu xaram bi changé wut ci la xam ne rek ci saa si ma ne ko waa mais dama la doon félicité rek xam nga di la joxaale samay conseil quoi téléphone bi Abdou Karim Diop mii teguñu ci ñaari fan mu commencé def yëfu sal jikko ji ñëwaat jikko coq la commencé di jàppaatee ko fenalaatee ko sosalaatee ko cootunte mu ne Abdou jógati na Abdou Karim jógati na nii la lay def ñëw na Kaolack tam def ay tojange mais foofu dañ ko fa xam Kaolack dañ ko fa xam bu baax a baax a xam nañ Abdou Karim ba may wax ak moom mu may fàttali ay Oscar de vacances ay ay armatan ak yu Kaolack ya ay Oscar de vacances ak Armatan <laughs> voilà non seen groupe bi dafa kii yoon quoi Oscar de vacances bu ngeen di jël foofu champion bi Armatan bi ngeen di fecc bi ngeen mën a ko yow yow da ngaa yàgg yi nga wax dafa yàgg. dama ne la nga Abdou Karim changé sa jikko ji Abdou Karim doomu xaram ji changé sa jikko ji ndaxte Abdou Karim changé wul caapa ndayam tey la gën a katt ndayam tey la gën a nekk doomu xaram Abdou Karim ñu ñëw teg ko fa muy def yu salté yoo xam ni fenn rek la Abdou Karim di def man ma leen gisee ngeen di toog di ñëw procureur naa a yéen Abdou Karim doome xaram ji ngeen di werante ay ay mbiram Abdou Karim moom moom saal bu a xam loolu la Moussa def bàyyi leen Abdou Karim bi ngeen di dabaa ñëpp la ndayam ñëpp la ndayam moo gën man nag mënu ma sori parce que xam ne dafa am luñ bo fu ñu bokk mënu ma cee sori li ma leen mën a wax li li ma leen di wax nii keneen du leen ko wax mënu ma cee sori nag mënu sori kat boko kaw nak bu ma ko doon réciprocité eh, bu amoon tay benen affaire lay don munu ma ci sori yeen na ngeen am war am ful am ay trace yu len jox ngeen mun a enchaîner dox ci trace yi pour mun gis ay réalité même munu ma ñew wax wax wax wax lépp wala wala wala di orienter ay nit nangam na ëllëg ñu naan non mo la ko orienter suñu famille yëpp ñi ngi fofu muy man di mom fofu la yam ak yeen ci Abdou Karim. ngeen bàyyi werante Abdou Karim dañ ko fi teg pour salté dañ ko fay teg pour def yëfu doomu xaram kese mi ngi koy matal mi ngi koy matal mi ngi ci am ay terrain am Abdou Karim amuloon caapandaayam mi ngi ci am ay terrain di ci am ay kër di ci yor ay millions doomu bu mu biiraloon yaay ja France la ko yóbbu muy jàngi loolu am problème mu faax fay léegi Abdou Karim da koy yónnee ay millions la koy yónnee léegi te waxoon naa leen Abdou Karim tam moo takkoon jabaru Tony Silva ba moo dem jëm gisement ba takk jabaru Tony Silva moom Abdou Karim xam na ma bu baax moo tax bu may ñaf ndayam du génn du wax xam na ma bu baax a baax xam na ni maa ko gën a katt foofu moo tax man la bu ñuy bandi bandi lu ci Dakar waaye yooyu yooyu lañ bandi mais ñun Kaolack Saalum bu muy tàng ci muy tàng ci ñoom ñuy toog ci kër gi di naan ataaya ñun ñu ngi rab ndayam quoi ñoom ñu ñuy fan ñoom ñii ñi ñoo ñii di bandi bandi lu yëpp nekk sañuy fans tey lañ bu dugg dakaar commencé changé nday seen seen pilaweer fëgg jaay yi ñëw sol nday ak kos karawaat di bandi bandi kanamu Ndakaaru mais na yem foofu ku fi gën nekk Kaolack waa ñun xamante nañ ndayam fii Kaolack bu ñu fi tàngal ndayam nekk fa chef kenn tax ñun ñëpp dañ ñun dañ ñu doon topp donc du tey dakaar lañ leen jël di leen saal bu ngeen sol ay costume karawaat ñu ne ñuy wax ay tur yoo xam ne man du ma sax tudd seen nday parce que na nawloowuma leen te ku ma ci jege dinaa kat sa nday parce que doomu xaram yoo xam dañuy dugg Dakar di nappaate ndayam sol ay koskara summi nday seen seen yëre fëgg jaay ñu doon jënd ndayam fa euh, fa la ca soobante wala montre siñ sàcceeg daal luñ soobante yi ñuy mbëkkante nday foofu di mbëkkante nday ay VLC di mbëkkante nday ay tóoro xamante nañ bu baax ñun nag ku ci nekk xam nga ji jiin bu nga sol ku la ko abal ñun xamante nañ ndayam kaaloo gi réyul Dakar ngeen di dem di def seen yëfu doomu xaram yooyu non ngeen nekke foofu sal bulo rek ngeen fa nekke doomu kat sen nday yi bu ñu weesoo loolu Ousmane Sonko léegi kan ko jox Baara Sangare Baara Sangare xam ngeen ko moo war a enquête Ousmane Sonko ay waay yéen daal Abdou Meng mooy dem jëlee Ousmane Sonko yàq kër ga dajji buntu kër ga ñëw paas ko Baara Sangare l'homme de Tatavax Baara Sangare moo war a enquête quoi <laughs> noo dëkk bee katt ndeyam Sénégal mooy dëkk doome xaramata Njaay dëgg dëgg dëgg Sénégal santul Njaay de doome xaraamata njaay la sant Sénégal doome xaraamata njaay Sénégal a ñaf ndayam Sénégal a tegal ndayam bon Sénégal a katt ndayam dëgg dëgg dëgg Sénégal dëkk fa sax doo du fierté quoi ay njiit yu ñëpp seen nday njiitu caga drogué njiitu baar kalandoo doomu caga yi ñoo leen jiite di di leen tuul ak a fen ak a comploté ak quelques marabu ñuy jàpp non baara sangara lam de teta vax def Grand Dakar ay ay njombe yu téegal ñi yenu ko yóbbu parcelle Baara Sangare dugg ci pharmacie di laaji Testavax jàpp ñoo fa nekk mënate leen toroxal leen bañ na tort Baara Sangare Sénégal yëpp di jubilé ñu naan Baara Sangare dàq nañ ko ñu jël ko jox ko sécurité urbaine mu jiite police ba yëpp sarab ndeyam Macky Sall bëgg doome xaram boo bëggee promotion del del jàpp sénégalais yi du noq di leen puub di leen daye ko doxat Macky yokk sa promotion boo fi nekkee di leen yërëm mu ñepp sa maam la wala mu yóbbu la ndey ci àll ba fat euh, àll gu lëndëm nga sànni la fa Macky Sall doomi xaraam lay wër moom doomi xaram la fa da ngay def yëfu doomi xaraam mu ne ceem non mi ngi nice mi ngi nice Baara Sangare loolu la tata vaccé def def defin gu ñaaw la la Baara Sangare def commissaire la doon commissariat la doon jiite ñu jox ko léegi commissariat bu Sénégal yëpp de dëkku sécurité urbaine directeur sécurité urbaine baara kaay magi ne ko kaay dàquma la de na nga defa rafet boo duggatee ci pharmacie laaj ta vax ñu bañ la ko jox ñafal seen nday ñoom ñëpp ay doomi xaraam lañ ñoom ñëpp ay doomi xaraam baara ne ko merci mu jox ko léegi sécurité urbaine ne ko joxatuma la benn commissariat commissariat yëpp laa la jox commissariat yëpp laa la jox loolu la ko wax mu jox ko commissariat ya léegi baara sangare moo war a nekk moom moo war a enquête Ousmane Sonko lan la koy enquête ci lan génn len tal ndey dëkk bi génn len tal ndey bi la la wax bu len xaar Ousmane Sonko di fanan ci ay karo bu len xaar Ousmane Sonko di wëru ci ay giri ba fajar ñu jappat ko encore bayiko fa samedi bayiko fa dimanche bu len xaar lolu mérité wul lolu yeen sénégalais yi Ousmane Sonko mérité wul lolu mérité wul ngeen koy sétan muy fanan ci giri mérité wul len ngeen koy sétan ñu diko sétan muy fanan ci ay ci ci ay karo ak tangor gi melni. kuñ ci tëjoon ci giri bu lëndëm sànni ko fa amul làmp amul dara tegal ko fa ab kopp benn siwo bu ndaw ak ndox bu safee saw ñu génne ko yóbbu ko mu dem saw yi ñëw non mais sawaay loolu dafa salte dafa salte Abdoulaye Wade defu ko Macky Sall Macky Sall bu ko def Ousmane Sonko ngeen foog ne lii rafet na Abdoulaye Wade deful lii Macky Sall Macky Sall bu ko def Ousmane Sonko bu ko def non mais dafa salte sax lii di ci xalaat sax rafetul Baara Sangare lañ Baara Sangare doomu xaram jooju noonu Baara Sangare imbécile boobu faiseur de sale boulot boobu noonu moom lañ wax moom moom moo war a enquêter Ousmane Sonko. c'est quoi léegi ana neutre yi ana doomu xaraamata njaay yuy tappi dans l'ombre toog Sénégal rek di lekk noppi ñuy jàpp sénégalais di leen torox mais ñoo ñoo kat sa ndey Sénégal bëri ñu dëgg sa ndey mais nag ñoo bett. parce que Cheikh Ahmadou Bamba fa la jaar ay sénégalais ni moom yu tegal sa ndey ñoo ko doon jaay tubaab ba. bu new loon suñu borom ko heure bi kenn waxatu ko bu leen fàtte ne El Hadj ay sénégalais ko jaay Lat Dior ay sénégalais ko jaay Buur Siin ay sénégalais ko jaay nga xam moom mooy euh, ñoom ñëpp ay sénégalais jaay ñii ay jigéen ñii ay góor dëkk bi mu musa am doome xaram te a xaram yi dañoo jur ay doome xaram doome xaram yi jur ay doome xaram muy descendance su doome xaram doomu Kutumbaasaan kenn mënu fi xeex ndax ñu ñëpp seen nday ñoo toog ci internet yi. gis dëgg ji duñu ci wax toog ci noppi téye seen ki lem seen koy ba mu rooñu toog ndeyam ñu ñëpp seen ndey sax ñoo nekk Sénégal ak ñoo dëgg seen ndey mais dinañ leen fi jëlee de dinañ leen fi jëlee de par A par B dinañ ñàpp seen ndey ba ñu jóge fi par force dinañ daxaar seen ndey ba ñu jóge fi loolu moom xeex bu infernal la boo xam duñu leen may tarfatal ay ni doome xaram yi toog ni tappi dans l'ombre di gis injustice bi noppi ñun dinañ leen traqué dinañ kat seen ndey par benn par dëkk bii ni di ngeen fi dingeen dina baax ngeen ne du baax dina fi ndayam baax nag dina fi baax mbaa ñu reyante mbaa guerre civile bu tar ñuy turante nday ay fetal ba mu jeex tàkk fu mu yem neex dina fi baax par force yéen doo leen yàq dëkk bi toog ci dëkk bi doon ay naafeq doog ay doome xaram doo leen yëy doo leen yàbbi di kat seen nday wala toog fu ngeen toog muy muy muy neex ngeen di encaissé toog tegale ay tànk duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg nañ taxaw dama ne gars yi c'est le moment ou jamais de libérer le combattant le patriote Ousmane Sonko dañ ko tooñ te ni tey jii gel boobu noonu nga xam moo ko doon enregistré ma nga noonu ñu ne gendarme la ma nga seey solul tenue gendarme yorul oto gendarme ñëw di ñëw di enregistré doomu aadama léegi nag lu fi des ma mooy dimbale leen ñoog ay loi dimbale leen ñoog loi Macky Sall dirigé wul le pays ci ay loi ak ay droit ngeen dimbale ñu sarax ñu arrêté duñu wax ay loi ak ay droit Oh, Ousmane Sonko, nul n'a pas le droit d'enregistrer à son institut. Nul n'a pas le... Merde ak seeni droit. Merde ndaay ak seeni droit. kat sa nday ak seeni loi ak seeni kat sa nday bu la ñu wax waxu droit ak ba waxu loi fii dëkk bi xeex fi des ngeen kat ndayam dimbale ak ay droit ak ay loi ay nit na nul n'a pas le droit d'enregistrement nul n'a pas le droit regardez nul n'a pas kat xol bala ñu kattulu ndayam ak seen i droit yooyu seen i loi yi ñàpp seen nday nga xam ne ab Macky Sall wu ko ay nitam appliqué wuñ ko xeex rek moo fi des tapp bu ñu benn tappet manipuler wala di ñu jéem a divertir ak ay loi ak ay droit ngeen ko téye ba mu ron ñun soxla wuñ ne nday xam droit ak loi du dëkku droit du dëkkub loi du dëkkub justice du dëkk état de droit état bandi la yuy def yëfu bandi jàpp ab leader toroxal ko bu ko tëj ci kaso yi ci ay fen

ñaf la nday BRT bi ñaf la nday TER bi ñaf la nday ba biir ndakaaru njaay jal jóob ci biir ñu samp fa nday drapeau de la liberte ñaf la nday ndakaaru njaay Kaolack ak Saint-Louis ak na lépp tàkk jëppét jëppét jëppét bay boy jëppét Abdou Meng jabaram jéeg bu am am ba fële ci HLM 5 di jaay ay tiis yi ñaf la ndayam fépp na fépp tàkk bu dara des arrêté leen circulation yi na arrêté lépp arrêté na lépp boy na lépp tàkk bu ñu buggee libéré Ousmane Sonko xeex rek a fi des ñu xam nday loi ni démocratie nii xaw ma lan lëfal ndayam amul senegal dëkk bu kat ndayam balaa ma day ñu yeewu xoox torox tot lekk ñu naanuñu seen day yi sax mënul mag buñ génne naan droit devoir démocratie ñëpp seen nday xamuñu dara si loolu doom ak xaram yi tur rek lañ ciy dégg balaa ma day ñaa justice ak droit ak devoir lëfal ndayam xamuñu ko ca dëkkub doomi xaraam la ñepp seen nday ñooy ñoo ñoo fa nek di jité di toroxal askan wa di len fen di len sosal di wax ay droit ak démocratie dëkk bu dëgg ndayam ay baara sangare di jité police ba ay ñom meng di jité police ba buñ défé sal bu lo ñu yëgal len meng lan la def ci affaire Adji sar lu da la def ci affaire Adji sar mom motax ñu def ko ni top gendarme bu nekk ndakaaru mengay sa bay meng fan la nekkon meng mo doon jité Colobane lam fa def lu mu salte Macky Sall génn ko ne ko bégee fils li nga def rafet na li nga def ci affaire Ousmane Sonko rafet na dàq ki nga xam ne moom mooy euh, Touré capitaine Touré jël meng ne ko képp kuy gendarme yaay bàyyam biir Ndakaaru Njaay loolu la ko gratifié yéegal ko ca kaw jabaram tekkul dara meng ubbil ko ngandam magasin ndayam HLM 5 muy jaay ay tiisi jasneer di njaaba njalla di dem France di dem fuko neex jox ko carte carte bu melni inama la ko lañ lañ meng nek si jàmmam mu tabax sen keur famille rof yoof yoof tongor def ko immeuble la def sen sen famille mi ngi bir gendarmerie fa la dekk ak jabaram yor ay lepp di dundu meng dekk doom ak xaram bo xamni ciaga jo xamni xam bu nekké col Kolda la japp en 2096 mille bu ñu indi gendarme les gendarmes jigen la ñaata gendarme la meng violer ñaata dem leen laaj gendarmerie yi boobu menga ngi Kolda xale yi ndaw ñu nekkoon gendarmerie doogu dugg ci jamonoy Abla Ablaye Wade bu mu indee booy xale yi gendarmerie ñu ci meng biiral ñu ci mengal laal kenn xamul lu mu day jàpp xale yi di ñadd te boobu am na jabar di tëddee xale yi nan leen di boo leen bëggee garaada boo leen bëggee ñu bañ leen dàq boo leen bëggee toog ci bi jàpp xale yi di ñadd rek la fa meng nekkee woon di tëddee xale yi di leen di leen jëlee de Dakar à à Kolda ñuy déplacé wu di ñëw foofu mu naan da leen di yokkal garab di leen tëddee lu mu tëddee ci xale gendarme kenn xamul lu mu day meng Abdou Meng sale boulot rek la xam yëfu salte rek la xam doome xaram bi te su suñu suñu si ñun lay dund ci biir gendarmerie yi lay dëkk moom ak jabaram ak i njabootam di lekk ba suur di nan ba man di ñun ñoo koy fayal Macky Sall dem jox ko moo jiite bépp gendarme bu nekk Ndakaaru jël ki nga xam ni moom mooy euh, Baara Sangaré ak lu salte lu mu defoon mu ne ko yow yaa jiite bépp policier bu nekk biir biir biir biir Dakar kon sénégalais yi jóg leen libéré leen seen bopp sonn nañ de wax nañ ba tàyyi fu nekk nii kenn umpaletu leen ñi nekk fi di def sal bu la yëpp xam ngeen leen wax nañ seen tur yi wax seen sant yi wax seen juddu wax seen yu salte yi def wax lu leen lu leen fi bàyyi boobu ba léegi ñun rek ñoo leen fi mën a jóge seule la volonté populaire dina gagné incha allah kon nag cher sénégalais debout taxaw leen suba tey jii guddi gi waruñu nalaw te suba waruñu ko bàyyee noonu na tàng jër na boy na bax ba ñu libérer la peuple sénégalais libérer Ousmane Sonko. kon foofu laa yem ak yéen libérer Sonko libérer Sonko libérer Sonko libérer Sonko libérer Sonko libérer Sonko libérer Sonko. libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko loolu la abnégation détermination mi ngi taw may romb tubaab bi ñu may xool parce que xamuñu ñoom seen soxla ak samay soxla bokkuñu seen bëgg-bëgg samay bëgg-bëgg bokkul ñu may xool mais te taxawuma nappiwuma ndax li may wax sama xol la jóge lu ma metti la lu ma naqari la sama combat la conviction laa ci demee détermination laa ci demee combat de principe la moo tax ma ne libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré muy taw bay tooy xepp je m'en fous libéré Sonko libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libere, sonco, libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko